waraloon ay ci diggante askanu Ngor ak takk der yi site bi toll ci juróom benn junni mètre carré fii ci Ngor bile suuf am nag lu muy firndeel bu baax ci askan bi fi yeewoo are maam Tamsir nduroog nag source de vie ci waa Ngor parce que bërëb boobu yàgg na fi mag ña bari jaar na fi ku nekk xëccoo na fi ku nekk tam bëgg na am waaw place la boo xamante ne booy dugg Ngor boo indee lu bon foofu ngay yem fa ngay boo indee la baax foofu ngay tàggoo loo génn tamit foofu ngay tàggoo boo génnee foofu booy doon tukki foo jëm dangay ngay taxaw foofu gaare sa oto ñaar. bii moo si ëpp doole si ñun boo demee da ngay gis place bi nii rek mais lafane lafane góor yàlla yëpp nangu nañ ne mooy suñu source de vie ñun waa Ngor gi yëpp loolu daal moo tax lépp lu jeunesse bi di fa ñaan mag gi di ko ñaan du combat boo xam ne jeunesse bi rek moo ko bëgg. jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg mooy parking bi arrêt Mame boobu suñu doneef la suñu lu ñuy suñu maam yi bàyyi la dafa mën ni nga jël béyob ngor bi si ñaari ñoo bokk représentation si ñun population bi bi ñu sukkandikoo ci kàddu ñi fi yeewoo arrêt Mame Tamsir teewee na mbir yi bëri mbir yooyee sax bokk ci seen histoire ba tax askanu Ngor di ñu ko xamal euh, baatin bi nekk foofu gis nga baatin du lu ñuy waxtaane saa yi rek la ñuy gis di ko waxtaane mais baatin boobu ñoom biñ ñu dee ba wax ñu ko fii ñu ñagee woon peste bi fii ñu ñagee woon bombardement de Dakar fii ñu ñagee woon yeneen ax yeneen ax yeneen ax yeneen foofu euh, ñooñu danga nga leen ko war a bàyyil yooyu lay jàmmarloo amoon fii fan yi ñu génn bàyyi fi ay fàttaliku yu ñaaw ba tax askanu Ngor di ko ñaawlu bu baax waaye lycée moo leen gënal ab gendarmerie loole ngir seen askan naka noonu yeneen ak gone mun cee jëriñu bu baax a baax.